waxtaan wu am solo jëm ci asayidatu jaaratullahi maryamu buso ñu fas yéene koo barkiloo ci bisam bu tedd bii ñu dëgmal di màggalu poroxaan soxna jaara nag euh, buñ doon wax ci moom mi ngi gane àdduna 1833 mi ngi génn àdduna 1866 daldi dund ci ay at fanweeri at ak ñett ab askanam moom mi ngi tudd maryama di doomi ahmad ibnu hamad ibnu alim ibnu isa nga topp askanam day daldi jeexee ci muusal jawri ibnu abdullah ibnu alxasan almusanna ibnu alxasan ibnu fatimata bintu rasulillahi nga xam moom ni sërif la askanoo ci seydina xasan way juróomu jigéen mi ngi tudd aïcha aïchatu waalo almbakiyu doonoon jaamukatu yàlla di ko ragal yàlla di ko amuk sàmm di boroom xam-xam boo xam ni géeju na ci fànn xam-xam yu bari daan taxawal ay xalaqaatu dars maanaam di jàngale xam-xam di waare daan sol ay jàllaabe daan kaala bopp bi doonoon ku gudd fan loolu nee nañ dund na 138 moom sayyidatu Aïsa soxna Aïsa wàll doonoon yàlla boo xam ne daan naafile guddi yi daan jàng alxuraan jépp ci juróom-ñetti rakka am na ñu ni daan na kaamin alxuraan bi ci juróom-ñetti rakka ci diiru bi mu dund ci diirub cent huit ans yi mu dund daan na ci naafila kaamil bi ci juróom-ñetti rakka kon mel na ni ci bi muy am fanweeri at ci la tàmbalee naafila kaamil bi ba bi muy faatu nga xam ni farlu gu màgg googu ak sellal googu loolu la ko suñ boroom fayee doom ji mel nii di soxna jaariyatu laahi Mariama Buso moom soxna astowaalo moom di Aysatu Waalo te olof yi naan ko astowaalo doomi sëriñ ndumbe daaru ñang la bokk ci ahlu ci dëkk bu ñuy Aafiya woy juróom mi ngi doon ahmadu soxna Buso di doomi Saydu Maharam Mbàkke radiyallahu anhu ajmaina waykat bu mag boobu di Seex Masamba mi ngi way soxna Jaara Buso ku ñuy wax Cheikh Massamba Mariam Diop mi ngi def ay bayit jëme ko ci askanu soxna jaara buso wax ni asilatun watanan sharifatun nasaban karimatun xasaban tafdiluha baana moom mi ngi dëkk ci soxna jaara buso cosaan la ci dëkk doon sërif ci askan di ku tedd ci giir gi mu bokk kon ay ngëneelam lu wér lu lu lu feeñ la soxna jaara buso nag mi ngi gane àdduna dëkk bu ñuy wax mbusoo bi ci jolof waaye nag ay baayam ñu ngi bàyyi ko woon fuuta tooro dëkk bu ñuy wax golere comme ni ñu ko waxee sànq mi ngi ganee àdduna mille cent dëppook 1249 ci gàddaay gi wala 1250 am na ñu ni mi ngi gënee àdduna Mbàkke Bawol mi ngi yaroo ci peggi woy juróom boobu di soxna Aysatu wàllu Mbàkke fala yaroo fala màggee di ku ñu yar yarub lislaam ci environnement bu teey boobu ci la jàngee alxuraan ci woy juróom bi ñu wax Muhammadul bi di boroom xam-xam bu mag ñu ko gën a siiw ci sëriñ ma Mbuso mokkal na alxuraan ci moom xereñe ko xifzan wa tilaawatan mën koo bind ci bi muy am fukki at bind ko mbind mu set wecci bi mu bindee alxuraan ci lañ ko jox nijaayam ji ñuy wax al mufassiru saxiir tafsir mbàkke numbe nga xam ni mook soxna Aïcha ñoo bokk ndey ak baay ci la commencé jàng mabaadi ul fiq ak xadis nabawi ak siiratu rasul sallallahu alayhi maanaam ci la commencé jàng fiq ak ay xadiis ak siira yonent bi looloo tax woykat bi ni ko amma abuha axuha xaaluhu xaaluha fahumu xayrul masaayiqi axlaaqan wa adyaana ay baayam ak i nijaayam ak i bàjjanam ñoom ñépp ñooy ñi gën ci sëriñ si ci jikko ak diine lim jublu ci abuha mooy sëriñ ma mooy sëriñ buso bi lim jublu ci jublu ci xaalu xaaluha mooy tafsir mbàkki ndumbe jàng na xam-xamu sariya lu ci tawxid ak fiq ak tasawuf ak yeneen ci xam-xamu diine yi farlu loolu ci xam-xam comme ni farloo ci alquran bi muy am 19 ans ci la xareñee xam-xam yu baree bari ba mujj gi mu àgg ci dara jay jàngale di jàngale muxtasaru cheikhul xalil nga am fil fiqh maliki ak maqamatul xalil fil adab wal luga wamnul muhayyib fi siirati wal amdaaxi nabawiya ak yeneen ci téere yi ci la xëy doon jàngalekat mel ni woy juróom nga xam ni soxna Aysata yi da daan jàngale sóobu tamit ci benn yoon wi mu sóobu mooy yoonu tasawuf ci yar boppam ak jihaadu nafs muxaasabatu nafs muraqaba ba jéggi maraaxil yi nga xam ni ahlu tasawuf dañ koy jéggi jaayamteem googu nga xam ni siiw na lool ci ñu koy waxtaane lu yenn saa sana wax ni aqalluhunna muhuran aktharuhunna barakatan jigéen ñi daal ñi ci gën a néew ak can ñooy ñi ci ëpp barke dogal suñ borom bi kat moom la sopp ba mu boole kook alqaadi Mamor Anta Mbàkke ngir mu doon borom këram mbokk yi daal ci dëppoo bi nga xamee ni nag muur nañ ko ngir mu fas yéene dem kër Mamor Anta Sali comme ni ko aada yi di defee rek muuru ko mbokk yépp wër ko kenn ko ne di ko dénk am ñu naan ko sa boroom kër bi kat jaamukatu yàlla la borom xam la ku ragal yàlla la boo demee na ngay dégg ay ndigalam di bàyyi ay tereem na ko liggéeyal liggéey gu sell soxna jaara bu so ci la wax ni nañ ma indil ab téereb alquran bañ ko indilee téere ab mu ubbi ko ci la yem ci aayab alxuraan bi mu wax ni maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatiman nabiin suñ boroom di wax ni muhammad maanaam mooy yonent bi nga xam ni mooy tëj bunt bu yonent yi ci la daldi sëgg tuuti daldi siggi boppam daan ni manaat ni hadihi l ayatul karima min alxawli bi anni sawfa uxlisu l amala wal xidmata kay yarzuqani llahu waladan rasulan ci la ni kat bu dul woon ayab alquran bii dina sellal sama liggéey tarbiya sama borom kër ba suñ boroom may ma wërsëgalee ma doom joo xam ne ab yonent lay doon waaye nag ginnaaw beneen yonent du ñëw gannaaw muhammad sallallahu alayhi wa danaa góorlu ba jur doom joo xamante ni ay sëtam nit ñu ba nee na daal kon dina góor góorlu ba jur fi doom joo xam ni suñ boroom dina ko def muy ku baax ay sëtam doon ñu baax waaye nag li ñu war a tuddwaale tamit te fàttaliwaale ko mooy Seydou Khady mi nga xam ne mooy Mame Mor doomi nijaay saydatu Aïcha la soxna Aatu Sawaalo Mbàkke mii woy juru soxna Jaara Buso ndax euh, maam Mor Anta Sali ibnu maam Balla Aïcha te mbokk la ci Cheikh Ahmadou Buso mii woy juru saydatu Aïcha Waalo te ñoom ñaar ñooy doomi maam ma aram mi sos Mbàkke Bawol ñi nga xam ni seexul xadim fa la juddoo saydatu ndumbe daaru ñang mooy way juru sayda aïsatu wàllu mbàkke nga xam ni ñu ngi bokkoon ci waa kajoor ak siin <clears throat> bokk na ci jikko yi jaaro bu buso mooy misaal la ci jaamu yàlla moom soxna jaaru boo bëggee joxe exemple ci ku mën a jaamu yàlla rek ci waxee soxna jaara bu suñ borom subhaanahu wa taala dafa wax ni wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa taamal saalihan nutiha ajraha marratayni wa atadna laha rizqan karima ci suratul ahzab te saydatu mariama ku ragaloon yàlla la doon ku sàmmonte ku farlu woon la bari woon ay sarax ak i julli yar doomam yi ci diine ak ko kersa ak jikko ju màgg ku bari woon julli la ba benn bis laaj nañ ko ni ko xanaa doo noppalu tuuti noppal sa yaram bi mu tontu leen ni leen tontu leen ñaari aaye alxuraan ne leen ñaari aaye yi de ñoo tax mënuma nelaw bi ci njëkk mooy wa minal layli fatahajjat bihi naafilatan laka asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuuda suratul isra ñaareelu aay bi mooy kaanu xaliilan minal layli maa yahja'uun wa bil asxaari hum yastaghfiruun suñu boroom di wax yoon saa salaam ni ko guddi gi na eh, naafi la di góor góorlu ndax suñu borom defal la maqaama yu kawe suñu borom di tagg gaa yi baax ya ni leen ñoom kat ñu néewoon ay nelaw lañ ci guddi gi te ca njële ya lañ daan jéggulu suñu borom cheikh Mouhamadou Basiiru cheikh doomi cheikhul xadim wax ci minan baayil xadim ni saydatu mariama jaaratullahi kat ku yiwoon la ku feg woon la ku bari bari woon diine la ku bari woon julli la bari woon ak sarax ku toppoon boroom këram la ci mbiri diineem ak diggam ak boroomam ku yaroon ay doomam la ci kersa ak diine ak làpp daan nañu nettali ci daan nettalil ak njabootam jaar-jaaru gaa yu baax yi ba sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci la déggee sa yim daan nettali ci kéemtaanu gaa baax yi daan góorlu ci ak naafile ak jëf ju baax nga xam ne soxna jaar bos da daan wax naan min dë bi saalixiina xiyaamu lay di bokk na ci eh, aaday gaa yu baax yi da mooy naafile guddi ba mujj gi Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul booba sax duggagul ci daara ja daan jug di naafile di taxaw ci sijaada ba moom soxna jaara busu kat misaal la ci sàmm secret maanaam nit ki nga wóolu ko ba dénk ko sa secret wala mu gis mu xam sa secret sàmbal la ko mën nga cee joxe exemple soxna Jaara Buso al misaaliyatu fi xifdil bi te alquran kat tagg na jigéen ñi nga xam jigéen ñu baax ñi ci fasaalihaatu xaanitaatun xaafizaatun lil xaybi ma xifdallahu maanaam xifdul bi mooy maanaam sàmm sàmm sa sàmmal sa bopp sa borom kër moom soxna jaarkat ku mënoon lool la nga xam ni li yenn saa salaam wax ni jigéenkat bu isa salatil maratu xamsaha wa saamat sawmaha wa xafisat farjaha wa ataat zawjaha wa xafisat farjaha daxalat jannata nga xam ni ku sàmmoon la boroom kënam bu ko wanee ginnaaw ku sàmmoon boppam la te alxuraan tagg na ñooñu ndax jigéen ñi kat ñoom ñooy ñi nga xam ni ñooy yenu sekkar yi suñ boro subhanahu wa taala ñooy ñooy jur yonent yi ñooy jur wali yi ñooy jur nit ñu baax ñi kon faaw ñu bokk na ci seeni warteef mooy ñu sàmm seen bopp suturaal seen bopp sayyidatu Maryam jaaratullaahi kat ku sàmmoon xayb la Cheikh Mouhamed Basir wax na ni dara daaw ko gaar Euh, jamono bi nga xam ni ci ni mënoon a sàmmee secret bu masaana boot ku tedd gi moom soxna jaara buso nee na euh, moom sëriñ tubaa yi di gaar xale yi moom daawu ko gaar daawul jooy daawul fo lu mu xiif xiif xiif tamit bu du tax mu muy jooy wala muy yëngatu ngir bëgg a nàmp daawul romb tamit bërëb bu ñuy moyee yàlla ndax bu ko soxna si masaana boot moom Cheikhul Xadim bu ñu rombee bërëb bu ñu mooy yàlla day yëngatu ba ñu xam ni fii ñuy romb kat moo ko naqari nga xam ni boo léegi tey dootu loolu lépp soxna jaara bu so da ko sàmm secret bu mu nëbbu la gannaaw ba ni sëriñ bi feree nga xam ni daawul jege lalu way juróom cheikh Moustapha Abdourahman Lo toxalee na ci cheikh Hamzatu Jaxate ni sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo ko wax ni ko ba mu duggee dakaar ba mu agsee Dakar mooy bañ ko dugalee ci néeg boobu bi mu waxee nafaale xayrillaahu fi ndakaaru kulla azani jarrahu makkaaru إذا ذكرت ذلك المبيت وذلك الأمير والثبوت طارت إلى الجهاد بالأرماح نفسي ولكن زب عن الماهي nga xam ne bisub alxamis la woon bis bu mujj ci rabiul awal mooy sëriñ bi mu jógee Ndar àgg Dakar avant timis boobu dafa wooroon ba mu commencé bëgg ndogu benn waaye ñëw ni ko kaay ndogoo ci néeg bi bi mu ko dugalee ci néeg bu lëndëm néeg bu tàng néeg bu euh, am nget gu naqari nit goo xam te dañ koo tabaxaaleeg ay ngànnaay yoo xam ni day jame sëriñ bi nee na bi ma duggee ci néeg bi jour boobu bis boobu dama dundal guddi gi ci ñaari ah, ñaari saar yi di suratul baqar ak al imran ba ma jëlee ci yonent sallallahu alayhi wasallam pare ne sëriñ bi nee na soxna jaara bu sa fekk na ko ci néeg boobu di ko ñaax di ko maanaam soññ di ko xam ni ko di ko xamal ni ko faaw nga coono yi nit sa kanam moo gën a metti daan ni ko lii la dal nii moo gën a woyof ci li nekk ci sa kanam daat koy wax ni moom sëñ Tuubaa mooy nettali suñu am su jaxate di ni ko soxna jaara ni ko fàttalikul bis ba nga ganee àdduna danga wëllëranteeg sa boroom ni ko bi ngay wax ak sa boroom booba maa ngi koy dégg ni ko dinga ko jaamu jaamu goo xam ni mbindeef musu ko koo jaamu di nga liggéeyal yonent bi liggéey goo xam ni mbindeef musu ko koo liggéeyal kon loolu nag faw nga matali ko waaye nag li gën a yéemu ci xissa bi mooy soxna jaara buso xissa bi musu koo nettali kenn ba ni sëriñ bi màggee ba tubaab bi yóbbu ko ndar ba mu dem ndakaaru ba ni soxna jaara buso génnee àdduna ba ni mu ko fekkaatee ci néeg boobu suñu boroom may ko kàttan mu ñëwaat fekk seexul xadim ci néeg boobu dog ko ko nettali ni ko bi ngay déeyaale sa boroom bi ngay doog gane àdduna maa ngi la doon dégg kon dangay xam ni kon kii misaal la ci sàmm secret ak xifdul xayb